ko Arouna ñu ngi lay euh, nuyu di la sant di la di rafetlu itam liñ ngeen nangulee li nga xam ne nag moom moo jëm suñu invitation. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu direction Rewmi FM yëpp hmm. vraiment ak euh, mbokk yi di déglu. rajo bi ci instant bi ñu nekk nii. Euh, di baalu ak ñëpp. di baalu ak ñëpp ci tabaski bi ñu génn. et di ziare sénégale yëpp. di ñaanal yàlla ñëpp ñu fekkee ay déwén yu bëree bëree bëri. comme ni nga ko waxee maa ngi tudd Arnaud Seck. dëkk Barga dans la commune de Dabia. ci département de Matam. jërëjëf. alors commune Dabia xëy na dinañ ci ñëwaat après ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci présentation bi tey boo ñu doon wax commune Dabia fan la nekk ci région bu Matam. oui commune de Dabia mu ngi nekk d'abord dans le département de Matam département de Matam am dix communes ci dix communes yooyu par exemple commune de Orefondé commune de Zagnam commune de Thilogne commune de Nguidjilane commune de Nabadji-Civol commune de Matam commune de Ourossogui commune de Ogo ci la commune de Dabia bokk donc mu nekkoon communauté rurale auparavant mais avec euh, l'acte trois de la décentralisation et la communalisation donc euh, effectivement, la communauté rurale de Dabia est érigée en commune, euh, regorgeant 16 villages. Donc 8 villages de Djeri et 8 villages du Wallo. ban at lañ ko sos euh, commune bi ban at lañ sos commune bi euh, La commune, l'année de sa création euh, est très récente. C'est à partir de 2000, euh, 2013, dans la communalisation 2013-2014, la décentralisation, dans la communalisation euh, nationale. Donc, c'est à partir de cet acte 3 la décentralisation-là que toutes les communautés rurales ont été érigées, en communes. Ci, ci, ci, ci, ci anam yoyo, effectivement, comme au niveau national, là, okay. la commune de Dabia. Okay. Donc, son premier maire mm -hmm. a été élu en 2014, mm -hmm. donc les dernières élections municipales. mooy Yaya Abdoul Kane. c'est le maire de c'est le maire de Dabia. dinañ ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo alors tey Arona Seck tey euh, xam nga ne tey mënuñu wax. benn wax bi nga xam ne te waxuñu li nga xam ne moom moo jëm ci coronavirus bi alors tey ci commune Matam wala région Matam tey naka ngeen ko dundee ak commune bi nga xam ni moo di commune bu Dabia naka la sensibilisation bi mel foofu. oui euh, Covid 19 bi aussi. donc damay profité ah, di jaale aussi sénégalais yëpp par rapport ak nombre de décès yu ñu am. partout au niveau du au niveau national. mais également di continuer di ñaax nit ñi. vraiment di moytu sensibilisation bi jàll na wax na ñu lu ñu koy fagaro wax ñu des gestes barrières à à utiliser et cetera et cetera solu masque yi et cetera et cetera wax nañu lépp sensibilisation bi ci war def nañ ko euh, maintenant pour revenir dans la commune de Dabia wala globalement dans le de Matam ou la région de maatam euh, dañ ciy sant yàlla parce que au début nekk na région boo xam ne moom moo nekkoon vraiment au vert amuloon benn ka à un moment donné ñu dem ba am dix huit cas loolu je l'ai déploré même dans les réseaux sociaux parce que cas yooyu de nañu instant loolu voilà instant bu ñuy déclenché c'était le temps où on ramener les enseignants pour la reprise des cours ñu teg leen liberté cinq def ay rassemblement yu mag a ah, loo xamante ni waroon nañ ko parce que man su ma nekkoon les ministres de tutelle de la formation professionnelle de l'éducation nationale et même du transport il ne fallait pas prendre enseignants yëpp ñu teg leen ci benn bërëb à Liberté 5 arrêt Liberté cinq pour que ñoom ñëpp ñu jëlee foofu départ et rentrer dans les yaakaar ni ñoo ñoo yokk kaa yi tey seen bërëb man j'ai accusé du doigt les ministres de l'éducation nationale et les ministres du transport de ne pas prendre ñu yu pour qu'effectivement éviter cela parce que temps yooyu ñu ngi naan dañuy éviter rassemblement yi dañu sol ay masques et cetera et cetera ñu jël enseignants Sénégal yëpp dajaloo leen si benn bërëb pour ñu jël les mêmes bus dans les régions c' est en ce moment exactement bu yeggee lañ commencé détecter les premiers cas ama bu ñu détecter premiers cas yi dans ma commune y avait un enseignant qu'on avait euh, testé au début positif heureusement li yàlla di def après ñu continuer di ko suivre ñu testé waat ko négatif dans la commune de Dabia elle euh, ñu am tous les cas géer yi mm-hmm. ñoom ñëpp ñu wër sant yàlla bu wër ba Matam ñëwaat également ci zéro cas. Ah. il une semaine. Mm-hmm. ñu ngi annoncé benn cas à Bokidiawé. mais c' est pas encore clair. Mm-hmm. donc s' il aujourd'hui à Matam c' un seul cas. mooy bu jàpp mooy bu Bokidiawé bi. Mm-hmm. que c' est leeragul leeragul. Ah. donc euh, sant yàlla la. Ah, mais est ce que mënuñu wax itam relâchement moom moo am ci wàll wi ni mel. mais bien sûr relâchement am na ci. en plus comme ñu ngi gën ci tabaski bi ñu ngi xaar parce que bari nañ ñoo xamante ni ñun suñu waa suñu nous sommes jóge Dakar di ñibbisi pour la tabaski dañuy ñaan yàlla rek vraiment yàlla musal ñu ci euh, ci coronavirus bi mais également di sensibiliser waat population bi nañu jël seen matuwaay vraiment takk seen masque utiliser les gestes barrières raxasu et cetera parce que il y a eu heureusement dem nañ ba dix-huit cas ba ñëwaat au cas zéro vraiment il ne faut pas qu'on ce que jotul tey ñu def ngeen def barrière ne fi ñu jógee waruñu fa delluwaat comme ni ñuy wax ni pic bi ñëwul waaye pic bi ngeen mën ko def ca maatam mu mu nekk Matam zéro cas oui pourtant loolu lu mun nekk la lu mun nekk la maintenant comme couvre-feu amatul état d'urgence amatul nit ñi mënoo leen tere dem frontières yi les frontières sont ouvertes donc les frontières interrégionales bien sûr c'est ouvert ginnaaw nag dañ ko ba pare et les gens ont l'habitude de rentrer chez eux pendant les fêtes de la tabaski gars yi ñibbi dañuy ñibbi pour la fête la tabaski mënuñ toog léegi nag comme ni ko président waxee responsabilité collective et responsabilité individuelle de tout un chacun d'entre nous même na vraiment aussi suñuy mbagg dañu war a bàyyi xel ci mesure yu ñu wax ñu respecte ko ñu war a bàyyi xel également ci déplacement yi daal les transports transport bi surtout dafa métti parce que da nga am auto dix huit places wala auto quatorze places et cetera et ñëpp di ci dajaloo donc vraiment de euh, pic bii moom mm-hmm. aujourd'hui Matam on est presque à zéro cas je peux le dire mm-hmm. dañuy ñaan yàlla loolu continuer et que si les responsabilités individuelles et collectives mm-hmm. des citoyens sont sont, sont vraiment assumées ñu respecte geste barrières yi ñu respecte sensibilisation bi ñu ci def vraiment yàlla dinañ ci musal ba mbokk yi di leen fàttali rek kii nga xam ni moom moo di Arouna Seck nekk responsable politique ca Dabia nekk itam acteur développement nekk itam chef de projet ci ANPEJ moom la ñuy dalal ci émission gox bi alors waxtaan bi dafay woy mais Arouna gis nañ ni li nga xam ni nag moom moo jëm tey ci commune Matam maatam dañ naan euh, Macky Sall sax ba mu doon dem élection lépp cent pour cent la fa am waaye du tee ni jafe-jafe yi bëri nañ fa di Arouna. oui oui am na ay difficultés le président Macky am na aussi réalisation yi mu def. mais jafe-jafe yi jafe-jafe yi bëri na. Euh, suñu waree lim réalisé réalisation bi peut-être day jël temps. mais comme sa question dafa posé. ci jafe-jafe yi ñëw ci avancé. dafa posé wu ci jafe-jafe yi. adduna bi noonu la bindoo aussi il y a toujours des cas des activités positives il y toujours des activités qui non pas encore reçu leur positivité maanaam ñun su ma doon xool ci jafe-jafe yu ñu am danga nga koy koy xool ci potentialité d'abord bu département bi am wala bu région bi am wala Fouta en général Fouta en général potentialité am mooy agriculture mbay mooy la pêche napp ak Euh, euh, comment l'appelle l'agriculture la pêche et l'élevage mm-hmm. maanaam yarum xar yarum ginaar yarum nag et cetera et cetera mm-hmm. bu njëkk mooy ci wàllum agriculture man président de la république je me souviens bu mu ñëwee Matam en 2013 si si ma mémoire est bonne mm-hmm. conseil des ministres décentralisé Matam à Matam bi may wax au de jeunes de la commune de Dabia mm-hmm. nee naa ko monsieur le président Matam mën na nekk le grenier du Sénégal en matière suffisance alimentaire pour tout le Sénégal que ça soit en riz que ça soit en sorgho que ça soit en maïs Matam mun na nekk grenier au Sénégal dans le cadre temps yooyu mu ngi taxaw ci autosuffisance alimentaire mm-hmm. en riz en sorgho en denrées de première nécessité Matam mën na ko def parce que fleuve Sénégal foofu la nekk foofu la jaar. de Saint-Louis jusqu'à Bakel. c'est pas un problème suuf si am na. kon lu des mooy ñu aménager ñu maîtriser ndox mi ñu aménager ay ay hectares de et puis nit ñi ay baykat lañ naturellement il suffit que ñu jàppale leen ci ay matériaux ñu mécaniser tuuti agriculture bi et puis dëkk bi naat parce que c'est une potentialité énorme qui est man liggéey naa fa nekk naa fa comme chargé de projet xam naa potentialité yi fa nekk xam naa aussi taxaw taxawu population bi par rapport à ça parce que mine de rien dañuy bay suñu bayee ba récolter mun nañu denc ceeb par exemple un na ba ba saison projet ñu waat fekk ñoom seen ceeb jeexagul ko Euh, tous les légumes def ko ci yeneen euh, def ko ci sorgo bi def ko ci dugub et cetera et loolu vraiment on peut le réaliser avec la volonté de l'État loolu mooy première jafe-jafe bi deuxième jafe-jafe bi wax naa ko keroog même ci sama publication dans les réseaux sociaux wax naa leen pourquoi Dak Matam ba léegi pen à se réaliser lu ah, tax justement Dak de Matam 2015 lañ ko lancé daf ko CRD waxtaan ci lépp jël même équipe de projet yóbbu ko Matam boo xamante ni DAC bii la représenté mais ba instant bu ñuy wax ni nii nii a pas un mètre carré qui a été aménagé pour man. waxtaan naa ci ak le pro le, le directeur du du Prodac sama xarit la sama camarade la on a commencé ensemble. Pape Malick Ndour que je salue de passage. gis naa ne aussi def na ci ay priorité am. la réalisation des Dac de Matam. gis naa gis naa loolu. léegi li des mooy volonté wu état. président de la république jox ay instructions génne ay fonds ay ay fonds de financement pour la réalisation vraiment des Dac de Matam. qui n'ont que trop duré. et la ministre de la jeunesse madame ma ma camarade Néné Fatoumata Tall également taxaw ci pour moins ñu assurer benn équité territoriale parce que dag yaa ngi yaa ngi ci yaa yaa ngi ci réew mi le coordonnateur mu ngi ci liggéey liggéey am solo mu ngi ci félicité mais également comme pour le moment on nous a dit que financement bi moo amagul dañuy lancer appel président de la république parce que dag yi dafay naatal mbay mi ça c'est un deuxièmement dafay créer ay emploi pour les jeunes pour un DAC c'est combien de jeunes c'est près de vingt mille jeunes yi nga mën a yi a employé mën ci liggéey main d'œuvre locale ni mën ci liggéey ñu jàng ak ñu ñàkk jàng yëpp mën nañ ci am vraiment c'est lu ñuy lu ñuy suturloo aujourd'hui ñun c'est urgent pour nous et c'est pour nous moo tax dañ ci bu président de yooyu bu ko defee vraiment la population ne serait que très contente encore de lui. beneen aspect bi jafe-jafe boo xamante ni population mu ngi koy dund. dund nañ ko sax ci tabaski bii nii. parce que wax naa ko sànq ñu ñëppay ñibbi pour. fêter la fête là-bas. diggante axe diggante Ourossogui ak Thilogne. depuis quatre ans mënuñu fexe ba axe bi jeex. maanaam euh, tabax bi dafa yeggul daal. yeggul le président de la république avait pris une très belle initiative de lancer la route. Euh, Ndioum ma Ourossogui. Ourossogui Bakel. mais jusqu'à présent. l'axe Ourossogui Bakel kooku jeex na. Mhm. l'axe Ndioum jusqu'à Thilogne c'est très bon mais de Thilogne à Ourossogui près de cinquante kilomètres mais oto yi mënuñ jàll. lu mu loolu xanaa liggéey bi moo yéex. liggéey bi moo yéex. Euh, peut-être entrepreneur bi moo jeexul mais loolu ñun sax dañu poser question pour situer les responsables. da jàppale responsable bi ci kan la. man jàpp naa ne. suñ la joxee suñ la joxee chantier. ñu confier la ko au même titre que d'autres entrepreneurs. Mmh. par exemple je connais la CSE. qui a travaillé ci Thilogne Goléré. ñoom pare nañ je connais il y a il y a des chinois ñoom lañ jox axe Ourossogui ba Kanel et je pense que jusqu'à Orkadiéré ou Amadou Onar je ne sais pas exactement pare nañ mais su fekkente ni am na koo xamante ni il a gagné le marché de l'axe Ourossogui à Thilogne et que moom ba léegi depuis quatre ans paregul il y a problème quoi il y a problème te askan yu mënul xaar askan bi mënul xaar donc c'est au c'est également à l'État qui octroie les marchés pour les entrepreneurs de mettre la pression sur foog mu jeex parce que ñun mënuñu xaar. yoonu Dandé Mayo bi de on l'appelle Dandé Mayo ce sont les villages qui jouxtent le fleuve. Mhm. yoon boobu aussi pareil. dañuy jógee dakaar pour ni ay pour ni egg seen kër il faut faire deux jours. avec ni doy na waar ak monde bu ñuy def bu ñuy nekk nii nii nii nii c'est pas possible. ça c'est un du cœur. loolu dafa nekk jafe-jafe boo xamante ni population bi mënutul xaar parce chantier yooyu dañ ko newoon dañ newoon dans dix huit mois donc mun nañ ko maximiser vingt quatre mois deux ans mu jeex mais aujourd'hui nous sommes à quatre ans et nous vivons le même calvaire da ngay yëg oto balaa ngay yëg sa gàlle tu sa yëre yëpp poussière tu ne peux euh, yoo xamante ni mu ngi ci won poussière boobu mais également da ngay jóge Dakar jaar Touba par exemple def lépp quatre heures de temps entre Ourossogui et Thilogne c'est combien c'est quarante kilomètres tu mets une heure trente ou deux heures temps sur la route xam loolu baaxul dafa métti donc jafe-jafe yooyu président man pour man ah ñett affaire yi ma wax ni su ko réglé il est vraiment rose. régler la problème Matam daal régler le problème Matam. amul niveau ah. mm-hmm. peut-être keneen am na. mun na am ay priorité mm-hmm. keneen mun na yeneen gis-gis. mais man su régler point yi nii ni nii. non ça y est yorutu il n'a plus rien. mais responsable yi bëri nañ Matam tamit xanaa ñoom euh, posé wuñu question bi sur la table du président de la république. malheureusement man constaté naa ne ñoom ils ont été absents du combat. responsable yi bëri nañ responsable politique. dama leen di lim que ça soit les députés que ça soit les maires que ça soit les présidents de euh, conseil d'administration que ça soit les euh, conseils économiques sociaux comme les collectivités territoriales et cetera je pense qu'ils ont failli à leur mission ah parce que ñoom ñoo fa teewal euh, seen gox bi mais bien sûr mais daaw bu ñuy xeex xeexu tali bi ma lay wax nii yoon bi ma la wax ni mu war a jeex ah, defoon nañ ci sax marche fii Dakar def nañ fa marche Dakar def nañ marche Fouta mais ministre de ministre maître Oumar Youm ministre du transport déplacé wu ñëw ba Fouta sur les vingt deux maires que nous avons pour les deux communes ou bien les vingt six maires que nous avons pour les trois départements mais il y trois qui là présents à côté du ministre loo si ci loolu mais loolu loolu loolu défaillance la ils ont failli à leur mission parce que au premier rang du combat pour ma combat bu amee hmm. mag ñi ak responsable ñi ñoo war a jiite population bi topp ci parce que suñu amee responsabilité population bi moo tax bu ñu la falee député dañ lay wax par exemple député du peuple yow peuple bi nga représente donc si le peuple a des difficultés su peuple bi waxee doxee di ñax da nga war a nekk au premier rang mais questeur bi gisoon nañ ko mu apaiser la situation oui au moins euh, il a été l'un des rares maires et mm-hmm. députés c'est un questeur mm-hmm. a été au côté du du ministre mm-hmm. qui l'a accueilli Ils étaient trois maires sur 26. Où, où, où, sont passés les autres Et les autres honorables députés, où sont-ils passés Les présidents de Mais parce qu'ils font de la politique politicienne. Donc ah. pour moi, la politique politicienne, ce premier intérêt d'abord n'est que l'intérêt des populations. Mais c'est intérêt individuel au détriment de, de, de l'intérêt des populations. Donc il y a le président de la République, mais j'appelle au contraire. Parce que attention au retour du bâton. Mm-hmm. frustration, élection, et élections les élections mais da nga am difficulté. kon jot nañu xoolaat daal doxalin bi ci. Euh, wàllum euh, euh, defar jéeg ci maatam ñu baral mbir yi. une urgence l'urgence elle est là. yii vraiment point yi ma wax nii nii nii le président doit kooku urgence la. gox ak goxaan yi tey est-ce que tey bu ñu leen yokkee doole. tey du ñu mën a indi beneen xar kanam bu yees ci communes yi puisque gox ak goxaan yi itam dafa am solo. bien sûr mais un développement il se fait il se construit à la base développement mu munoo munoo xëy defar sommet même sa même sa kër bi ngay construire mais da ngay defar fondement bu dëgër nga soog ci teg ay briques muy jóg bu la neexee sax dem dixième wala vingtième bu la neexee tabax gratte ciel mais fekk fondement bi dëgër mais base bi bu taawul da ngay tabax une heure de temps deux heures de temps nga commencé gis affaire yi di di yëngatu dafay daanu aujourd'hui le président a l'idée de mettre en place l'acte 3 de la décentralisation pour man la concrétisation de l'acte 3 de la décentralisation des na parce que développement bi ñan ñoo ko jëmmalul mais ki ko war a jëmmalul mooy d'abord et avant tout ñi ko jiite am nañ texte yi xam am nañ instructions yi xam nañ le président wax peut-être je peux comprendre ah mën nañ ne au Sénégal amuñ yenn moyens yi par rapport à l'ambition politique bi gars yi am mën nañ am moyens yi am na am na yooyu toll mais tu, tu tu règles les moyens financiers mm-hmm. pour la mise en pratique de tes actions quotidiennes ces activités politique de développement mm-hmm. mais su fekkee dañuy am ay maires yoo xam dañuy déserté mm-hmm. da ngay toog yow da ngay sànni xeer daa mel ni de non mais dañuy déserté la majeure partie dañuy déserté dangay am sa mairie am sa bureau yow on te trouve jamais dans ton bureau. c'est-à-dire yaa ngi Dakar. mais mais maire maire yi tamit équipe la. c'est une équipe. Mhm. mais mais mais kër boo gis dafa am manager. maire yi dafay am manager. et le maire est le représentant de l'État. de d'une part. Mhm. de l'autre part il a la confiance de la population. parce que doon naa ko wax toujours damay damay def différence entre ñett élection yi élection présidentielle élection législative ak élection euh, municipale mhm. élection présidentielle c'est une personne mhm. par exemple un président de la république mhm. avec sa personnalité bëgg jiite réew mi sénégalais yëpp xool ko naan ñun d'accord nañ ci kii mu jiite ñu kooku c'est une élection entre kenn nit ak l'ensemble de la population bi élection législative moo tuddee élection de représentativité maanaam euh, ñooy xeex ku ci nekk di wut majorité pour mun a doxal politique am au niveau de l' assemblée nationale. quant à élection municipale. seen élection de la citoyenneté. ok boobu dinañ ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo. voilà alors tey euh, Arouna chargé de projet nga ci ANPEJ ANPEJ koo ko wax xëyub ndaw yi ngay wax waaye tey euh, taux de chômage bi bëri na Matam de. am na du ma nee amul am na. taux de chômage bi am na. quand on dit Matam on singularise c'est normal mais c'est au niveau national. Mm-hmm. un taux de chômage qui tourne entre quinze et dix-sept pour cent. Euh, bari na. ban mooy dernière xayma bi. dernière xayma bi parce que j'ai pas encore le chiffre exact. Mm-hmm. mais mais le président Macky lui-même disait que nous sommes entre quinze et dix-neuf pour cent. man mun naa jàpp entre quinze mm-hmm. et dix-sept pour cent foofu la affaire bi toll. donc c'est aléatoire aussi parce que dafay yëg di wàcc d'un moment à un autre mhm. mun nañ am tout de suite des opportunités d'insertion mhm. ñu intégrer ay jeunes dugal et cetera et cetera mhm. mu wàcc drastiquement mun nañu am aussi un climat d'affaires boo xamante ni dafay diis mhm. comme par exemple période Covid 19 bi mhm. climat d'affaires bi day diis euh, les entreprises et les sociétés am na lu ñu tal lu dul recruter bien sûr effectivement mu na am automatiquement mais laata Covid bi affaire bi mi ngi fi woon oui oui mais avant avant le Covid au moment où le plan Sénégal émergent prenait son envol mais on était à pour du taux de chômage mais loolu mën nañ ko mën nañ ko comprendre mën nañ ko xayma euh, maintenant taux de chômage boobu pour le combattre mm-hmm. je l'ai dit quelque part parce que man maa ngi ñibbi si Matam mm-hmm. il y une semaine mm-hmm. ma nekkoon ci formation en entrepreneuriat waaw loolu sax lu aspect bu am solo la. justement dafa bokk ci loo xamante ni. ça fait partie de la question. dafa bokk ci loo xamante ni mun na lutter contre le chômage des jeunes. entrepreneuriat mais ci man fànn gars dañ koy wax nii rek mais fan lañ war a jaar. dëgg moom sax mooy alternative bi. xam maa ngi lay wax ne léegi maa ngi ñibbi si temps yi rek une semaine. Mm-hmm. ci formation bu ñuy amal Matam. pour soixante jeunes. Matam ñu def. ñett cohorte de vingt jeunes au même moment ñuy def formation bi à Matam beneen formation mi ngi doon am à Saint-Louis parce que programme boobu sax concerne les régions noires ak sunu partenaire coopération internationale ak OIM mhm. lu tax ma ñëw ci mooy alternative pour lutter contre le chômage des jeunes mooy entrepreneuriat naka lay demee nii lay demee mooy jeunes yi mën nga am tous les diplômes du monde pour créer de la richesse nga jàppale état également di créer ay emploi il faut que ñu jàppale leen ci tàggat ñu former leen entrepreneuriat esprit bi ñu am esprit d'entreprise ñu former leen ci gestion financière de projet naka la ñuy gérer fonds yi ñu former leen au moins ci ay comptabilité simplifiée affaire yooyu ñu mun a am même des micro entreprises même avec cent mille je donne un exemple Babacar Ngom ñu ngi wax sax léegi dans le au niveau tout mm-hmm. mais il commencé par soixante je parle en radio, mmh. pour mettre en place cette grande entreprise qu'on parle aujourd'hui au niveau africain. C'est un modèle d'entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire que nous avons formé boy, nous tagger nous avons nous avons de financement. Nous créons nos propres entreprises. Entreprise, entreprise à sa création, na au moins créer un emploi ou deux. Mais quoi? soo ko tàggatee ba mu am esprit d'entreprise bi mhm. non seulement da ngay créer richesse parce que l'a dit ah kii kii ko par mois mhm. bokk na ci su ñu gënoon dool bien sûr mais kooku il a son propre business. Hmm. suñ ko tàggatee ba mu agrandir chaque année ou chaque deux ans il peut ajouter un autre jeune dans son entreprise hmm. donc dafay liggéey également di jàppale état à recruter moo tax alternative bi hmm. entrepreneuriat dañ ci war a vraiment farlu bu baax a baax a baax dañ ci war a jàpp mooy option parce mooy option alternative pour lutter contre le chômage des jeunes mais ku neex na itam ku jóg rek ne damay def entrepreneuriat mais dafa am ay bases mooy mooy formation bi parce que aussi mënoo def lenn fekk xamoo ko. Mhm. mën nga mën nga nekk sax di jaay chaque jour ngay dem ci marché bi di jaay et cetera et cetera. ngay jar mais mun nga jaay ba pare mais doo mën a gérer. mu doo mën a gérer financièrement xaalis bi. on est dans une société où. solidarité bi dafa bëri. man damay nekk ci kër gi. Mhm. je gère peut-être une famille. de dix quinze personnes ceeb dafay jeex diwlin dafay jeex et cetera et cetera grand grand frère wala petit frère dafa feebar tuuti et cetera et cetera il y a beaucoup de yoo xamante ni dañ koy def tous les jours dans la maison quotidiennement sans en rendre compte c'est vrai c'est pas du gaspillage parce que nous sommes une société sociale mm-hmm. nous sommes très dans le social mais il y a une manière également bi nga mën a gérer say fonds da mm-hmm. lay jàppale effectivement nga mën a euh, def nga mën a wuteele sa poche ak sa poche entreprise loolu lépp ay tàggat loolu su suñu former le maximum de jeunes possible mm-hmm. yàlla def état génnee xaalis wala ut ay bailleurs ak ay partenaires yu xaalis ñu jàppale booy comme le fait l'ADER comme le fait l'ANPEJ man def naa deux ans ANPEJ ñu finance foofu près de cent millions avec près de quatre vingt trois projets projets yoo xam ne ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi doxal ñu ngi dawal et cetera mais loolu bokk na ci loo xamante ni alternative la te day sukkali gox mais dafay sukkali gox parce que soo amee ay projet mbay am ay projet élevage am projet de multiservice mhm. et cetera et cetera mais économiquement mais gox bi dafay gox bi dafay dundu mhm. mais ci wàllum koom. Euh, Matam li muy regorger ci wàllum économie bari na de. bari na potentialité yi ñoo bëri <laughs> et malheureusement. Mhm. gars yi ko. merci malheureusement potentialité yooyu gars yi exploité ko. Mhm. justement le potentialités son la dans le cadre de l' agriculture. potentialité yaa foofu du jeex. mais malheureusement nous sommes toujours dans le service rudimentaire. dañuy liggéey avec la houe avec la daaba. rentabilité bi mënu fa am. Okay. il faut une mécanisation de l' agriculture moom nag volonté wu état. mu accompagner leen. accompagner mm -hmm. ces braves paysans. braves paysans braves yu nekk ci gox goxaan yi. jàppale leen en aménageant leur terre. en maîtrisant l'eau et ñu jàppale leen vraiment ñu mécaniser agriculture. mais l' élevage. <laughs> ñaata yoon la ñuy wax ne xaru pël xaru pël par exemple. xaru pël pël ñu ngi tabaski. de Matam. vient de Kanel. de de la frontière avec le avec à Bakel. Mhm. am am loo xam ne dafay jógee Mali mais ñi nekk Mali si des. loolu la ñuy réeree loolu la ñuy réeree mbir quoi. voilà mais loolu bon ça peut être très large quoi c'est culturel. bien sûr mais euh, déjà élevage boobu. Mhm. mais ñun mën nañu état mun na accompagner éleveurs yi. Mhm. ba est-ce que mën nañ am auto autosuffisance élevage. mais bien sûr man loolu mën na nekk parce que ñooñu loolu la ñuy dund loolu la ñuy dund. da ngay gis koo xamante ni dafay jóg jël son bidon d'eau ak sa kaan. bu mhm. dem ci àll bi ne dëkk dëkk foofu ak xar yi pendant six mois wala huit mois en attendant la pluie. c'est des nomades c'est des bergers nomades. Mhm. ils se déplacent pour des kilomètres pour faire vivre pour ñu dund jur gi. mais ñooñu au lieu ñuy def élevage extensif. mais jàppale leen ñu def élevage intensif mooy comme bi ñuy def ici à Dakar jàppale leen ñu def élevage intensif mhm. am na am na ngooñ boo xamane sax dangay ngay arrosé mu mu mu mu jóg mhm. jàppale leen ci loolu mais aménager leen ay périmètre foofu dafa yaatu. léegi gars yi kenn kenn xaaratul kenn léegi ci wàllu koom. non c'est-à-dire gis nga li Rwanda def dans l'entrepreneuriat. Mhm. ñu jàngale entrepreneuriat dès le collège. Mhm. mais Sénégal war na ci roy. jàngale entrepreneuriat auto emploi dès le bas mais également jàppale secteur primaire bi parce que yàgg naa ko wax. munoo développer secteur secondaire. Mhm. noo développer secteur tertiaire. tant que yow sa secteur primaire jógul munul nekk. parce que mun nga jàppale élevage bi ba mu jóg. mais pour la transformation du lait par exemple. ah bëri na foofu de. mais voilà. Mm -hmm. cette euh, euh, cette jonction entre. Mhm. le secteur primaire et le secteur secondaire. nga yar euh, magal et cetera par exemple saison des pluies ñëw. Mhm. saison des pluies bi bu ñëwee et cetera et cetera y a tellement de lait. Mhm. Euh, tellement de tellement de vaches. est-ce que duñ sax. mais finalement dafay yàqu. war ñu defar foofu ay ferme kon. merci beaucoup parce que amuñu moyen pourtant de faire la transforma transformation du lait. ok ok mais loolu mais loolu. ay projet la de. non. ça peut être rose. affaire bi dafay naat. dafay tu mets les gens à l'aise mhm. sàmmkat bi day kontaan ci lu muy def parce que dafay xam ne man maa ngi def li ma bëgg mhm. parce que loolu la bëgg sàmmkat bi boo ko joxee leneen du jël agriculteur bi ki nekk ci champ bi boo ko joxee leneen du jël parce que c'est devenu un travail d'amour mhm. moom loolu lay dund c'est son amour hmm. mais boo ko jàppalee ci lu mu bëgg moom ba pare en même temps ngay développer gox bi nekk lu am solo par rapport la modernité. mbokk yi di leen fàttali rek euh, ñu ngi fii ci rajo rmfm tey di dalal ki nga xam ni moom moo di Arouna Seck ci émission gox bi si rajo rmfm FM alors jukki nañ fi ay ponk yu bari léegi dañuy ñëw ci commune Dabia commune Dabia kii nga xam ne moom moo di Yaya Abdoul moom moo fay maire bi tey naka nga gisee tey yow en tant que Arouna yow gestion ñu mu gérer commune bi. oui monsieur le maire maa ngi koy nuyu de passage Yaya Abdoul Kane maire de la commune de Dabi depuis 2014. li ma ci bon du ma nee du ma peindre lépp en noir. mais xam naa ni il y une gestion solitaire. plus ou moins nébuleuse de la mairie de Dabi. foo ko teg yow. parce que solitaire bi premièrement mooy municipalité dafay am manager mais également dafay am équipe boo xamante ni dafay liggéey sur le terrain euh, soo nekkee maire également war nga sa say premiers représentants waxuma la sa conseil municipal bi ses premiers représentants ce les chefs de village parce que yaa ngi dirige commune boo xamante ni am na seize villages booy jël décision même au niveau du conseil municipal say conseillers am nañ droit voter la li nga bëgg mais booy jël décision na nga waxtaan ak borom dëkk yi ak chef yi na nga waxtaan ak peut-être ASC yi les associations des jeunes na nga waxtaan ak les associations des jeunes pour le développement les associations sportives et culturelles les GIE les GPF parce que ci gox goxaan bi comme émission gox bi lañ nekk mhm. voilà les acteurs de développement à la base ci village mais booy jël ay décision boo bëggee décision bi nekk décision populaire da ngay waxtaan ak ñoom mais loolu gisuñu maire bi sans premier point yi exemple bi mu si jox mooy dernier conseil municipal bu mu def dafa jël benn village conseiller non je suis pas conseiller et heureusement je suis pas conseiller <laughs> heureusement dernier conseil municipal bu mu def mu jël benn village qui était autonome am chef de village et tout mu jël ko defaat ko quartier ci village am moom bu mu dëkk ban ban village village boobu mu ngi tudd Taabe moom mu ngi dëkk commune dernier conseil municipal bi ça ne fait pas mu jël village boobu defaat ko quartier. jël ko yokk ko ci village am en quartier. dans le conseil certains conseillers l'ont dit no monsieur le maire nañ ci waxtaan ak chef village yi. xam naa ak chef village de Dabi mu ne ma moom chef village yi concerné wu ko. Hmm. li ko concerné mooy conseillers yi bu ñu nangoon nañu voté bu ñu nangul bu ñu voté nañ ko bàyyi mais moom conseiller lay waxal loolu c'est grave. voilà ce que j'appelle une gestion solitaire management amu fa boo amee boo nekkee kilifa yow ti yaa ngi jiit des milliers des milliers de personnes mhm. population ngi jiit da nga war a diisoo ak ñoom waxtaan ak ñoom noonu la def ci GIC bi le GIC euh, groupement intercommunautaire mhm. de Bosoya. lu mhm. jóg Bosoya. noonu la ci def. dem signer 700 milliards. avec des ah, Italiens 700 milliards boobu bëgg nañ ko dégg nga koy dégg rek de mais continuer moom mooy président si mhm. moom moo ko signé. Mhm. dem signer 700 milliards. sans en amont pour en parler aux populations. amul benn chef de village bu ko yëg auparavant à part bi ñu defee collectif bi commencé di ci liggéey di ci taxaw di poser ay questions et tout c'est pas c'est pas bon hmm. booy def mbir fekkee da koy def pour man hmm. fekkee man nga koy defaral defarloo ko pour sa bopp hmm. defarloo ko pour ton propre intérêt mais waxtaan ci ak man da nga gis ni askan wi seen bopp ci gestion gisuñu seen bopp gisuñu seen bopp ci gestion malheureusement man sama village il y a trois ans de cela loolu mënuñu ko fàtte mon village Barga suñu di saison de pluie comme nii moo ñëw biig bi mm-hmm. mais bi biig bi tojee il était chez à Dabia mm-hmm. à Kobilo dañ ko woo monsieur le maire vraiment on est la population est dans est en danger parce que l'eau a détruit la digue de protection du village dañ bëgg au moins benn benn caterpillar benn camion mu ñëw jàppale ñu si sëkk bi et était à trois à à combien c'est sept kilomètres entre chez et chez nous ñëwul ñëwul il n'a venir il n'a envoyé une délégation pour constater. Hmm. Il n'a pas envoyé aucune camionnette pour régler. Mais les villages ont pris en charge leur sécurité parce que c'est sécuritaire. Hmm. Voilà un maire qui est loin de ses populations. Alors que ce n'est pas logique. Ça vraiment, je suis désolé, mais c'est ça la réalité. da nga jàpp ni dafa dafa laaj ci lu bari. ah oui ci lu bari. Hmm. dafa dafa laaj parce que même économiquement amoon na opportunité. Euh, la mairie de Dabi devrait être l'une des mairies les plus développées de de Matam. Mm-hmm. ma joxe beneen exemple. Mm-hmm. Euh, la carrière de Barga loolu carrière la. Mm-hmm. CSE. tabax bu mu tabax de Thilogne jusqu'à Golère. carrière bi si commune bi la bokk. lu ñuy lu ñuy soxloon ci ay béton yëpp yëpp yëpp yëpp. je ne dis pas des milliers des des centaines de camions c'est des milliers de camions. yu ñu jëlee foofu yóbbu. defar ci tali bi c'est bien. tali ñu ñëpp ko bokk. mais où est la mairie de Dabi dëgg nañ négocier na benn cent million avec CSE. da ko dëgg. ça peut être vrai. comme ça peut être vrai bu dee dëgg la. na indi ay leeral. merci. su jotee cent mille yooyu. na def ce qu'on appelle le retour de l' investissement maanaam la responsabilité sociétale de l' na defal village boo xamante ni fa la carrière bi nekkoon na ko defar retour d' investissement génneel ko responsabilité sociale am d' entreprise mais également mu am ci lu mu ci jël mu defar commune bi bu dee am na village bu soxla par exemple benn terrain de football mu defaral ko terrain mu defaral ko clôture terrain de football boo amee village bu soxla case santé mu tabaxal ko benn case santé ainsi de suite mais 700 euh, milliards yi ñu ngi doon dégg projet bi ñu ne lii buñ ko tabaxee dina sukkali Matam dina sukkali sax seen commune yooyu daa bi yàq yeneen yi xaalis boobu fu mu dugg. 700 milliards yi. ils ont dit qu'ils ont négocié avec des Italiens. COVAC et des Américains IBE pour que ñu def ay financement agro business dans la pour le moment. Mhm. il y a collectif. ci collectif bi laa bokk. Mhm. pour la défense des intérêts du Bosser. qui a catégoriquement le projet pourquoi. Mhm. parce que dañ ko ñu wooleen leen à réunion pose leen ay questions. ñu leen projet bi ngeen bi ngeen bi ngeen signé d' abord ana projet bi où est l' étude de faisabilité ñu ne ñu defaguñu étude de faisabilité projet bi ñu ne leen lu ñu bëgg def fan lañ ko bëgg a def ci gox bi mu ne comme amaguñu amaguñu étude de faisabilité bi xamaguñu ñaata hectare lañ ciy soxla mais ñu ne leen mais projet bi duñ ko def ci diggante suuf ak asma on va pas le faire le projet là on va pas le mettre sur le fleuve mais projet bi ci kaw suuf lañ te teg noo dem déclenche décroche sept cent milliards rek comme ça dans le vide dafa am loo teg sur la table ba gars gis liir xam ne lii jar na sept cent milliards quand même les gens ne sont pas fous mhm. d'abord ils ont fauté sur le plan communicationnel. Ils n'ont pas informé les populations. Mais même dans la faisabilité, il y a beaucoup de nébuleuses, il y a beaucoup de non-dits. Pour population, bi wax leen il faut les dire la vérité des choses. waxal gars yi man de gis naa fi mille hectares mille hectares yooyu def naa ko ci projet ci dëkk nangam ci village nangam on a pris village nangam on a pris telle position telle position vraiment ça fait en tout pour tout mille hectares mille hectares yooyu mmh. dem nañu négocier ak ay partenaires européens partenaires européens yooyu def nañ ci sept milliards. Mhm. au moins c'est compréhensible. <laughs> mais est-ce que yéen tey yéen ñi nga xam ni yéen nekk ci collectif boobu bugg leen bloquer projet bi. non projet bi su fekkente ni dañoo et moom moo ko wax. Mhm. bu dee dañoo signé benn projet de quarante deux ans. boo xamante ni BOOT la. ñoom ñooy build ñoom ñooy own ñoom ñooy exploiter. ba pare dans quarante ans ñu transféré ko population on va dire non am lu tax. arrangé leen lu tax mhm. parce que wax mbay mi ak ci sàmm. population yi loolu lañ dund mais doo jël benn benn européen le bradage des terres africaines xam nañ ko parce que Europe fees na am na yeneen gox yu fees en Afrique les terres encore la bradage bi xam nañ spoliation foncière bi xam nañ ko mais su fekkee dañuy tabax dañuy jël par exemple cent hectares ma joxe exemple comme ça ñu clôture ko pendant quarante ans ñoom ñoo koy exploiter ñoom ñoo koy utiliser pendant quarante ans ba pare suñu amee luñ ci am parce que suñu investir sept cent milliards yaakaar nañ am ci le double mais suñ ci amee luñ ci am ba pare pendant quarante ans ñu soo ko doxaat population bi nee naa dans une de mes interventions suuf soosu même boo ci boo ci jiwee naanaa sax bu sax parce dafay fekk seen produit chimique yi yàq lépp ça c'est un mhm. mais deuxièmement la conséquence sociale est que mais samakat boobu doon jaar foofu ci sept cent hectares yi pour dundal ay juróom mhm. pour dundal les bétails mais béykat boobu doon xëy chaque nawet wala chaque saison euh, saison de crue pour bay gerteem wala bay may bay dugub mhm. bay maïs et cetera mais kooku désormais ce n'est pas sa propriété parce que kii clôture na mille hectares wala cent hectares yoo xamante ni amoo droit dugg ci parce que c'est devenu sa priori sa propriété pendant quarante ans malheureusement ils ont même mal négocié ay magum jëm nekk ay ministres ak ay directeurs généraux mhm. nekk ay maires ngeen di négocier un contrat BOT de quarante ans da ne dañuy négocier au dos de la population au dos de la population pour leurs propres intérêts moo tax la population a refusé et elle mhm. en a en a fait plusieurs sorties. Euh, le, le, Forum civil, mhm. que je salue de passage, le Brahim Sec, mhm. ils ont fait un grand travail mhm. pour la conservation de cette terre-là. Ils font mon Dieu, ils font mon Dieu. ils sont dans le silence. Nous sommes cool, avec <laughs> <laughs> nous cool, mais nous on veille. Okay. Notre rôle, c'est un rôle d'alerte et de veille. Et puis, nous bagnons le développement de la communauté, parce qu'il faut t'inquiéter, pour le décret. fa la suñu suñu waajur nekk. Mhm. fa la suñu njaboot nekk. du ñu bay du ñu bañ le développement la mhm. commune mais du ñu nangu aussi ñu ñuy delloo ci esclavage wala ñu ñuy delloo vraiment ci colonisation. ñu ko nangu. on peut exploiter les terres. Mhm. pour le bonheur des populations comme ni ma ko waxee sànq si dag yi. wala comme ni ma ko waxee sànq si réalisation yi état war a def pour les populations. on est preneur. on est d'accord. mais tey est-ce que yow nekk li ngay wax ni yëpp tey que ni place Yaya Abdoul Kane itam moom ngay yot ba tax na ngay sànni sànni xeer yu bari yi. bon non euh, xam nga man politique développement lay def man heureusement teel naa xam président de la république avant moo nekk président de la république président Macky. bu mhm. mu nekk opposition am na lu ñu commencé di waxtaan auparavant. mais nee naa ko man mosuma def politique. Mhm. je vous soutiens. pour faire de la politique de développement. dañoo jóge ci ay villages yoo xam ne pendant plus de quarante ans cinquante ans ils n'ont pas vu de développement ils n'ont pas vu de réalisation wala ils n'ont pas vu de l'État suñu demee ba màgg ba gis suñu kanam ñu bokk ci kuréel ñu bokk ci benn euh, alliance pour la république benn parti politique am vision président de la république ñu incorporé ko mais so àndee ak ko gis-gisam da nga ko war a incorporer nga defar ko sa gis-gis bopp président bu defee plan Sénégal émergent yow defal plan communal émergent président bu amee gis-gis ak droit de la décentralisation pour vraiment communes yi am doole am et cetera mais defal pareil président si est proche de sa population am yéene bëgg affaire yi dox mais defal loolu il faut incorporer la vision du président pour être fidèle et loyal à ses okay. ses activités mais man je suis dans un mouvement qui s'appelle pour la défense des intérêts de le messie du mouvement. Mm-hmm. mouvement bi c'est la démocratie moo koy daw. am na lu ñu gis lu positif dañuy applaudir dañuy tàcc ne c'est très bien. am na suñu gisee loo xamante ni c'est très négatif c'est des inconvénients. mais dañ koy alerter à la population maintenant à la population de choisir. Mm-hmm. demain élection bu ñëwee. Mm-hmm. à la population au mouvement d'abord de choisir est-ce qu'ils doivent aller aux élections ou bien doivent contribuer non naturellement. naturellement tous les seize villages am nañ ci ay représentants tous les seize villages de la commune ay représentants mu nekk ay mag ay jigéen ak ay jeunes yu dynamique mhm. yu xam seen bopp gis seen kanam mën ne gis seen kanam yoo xamante ni ils sont dans le mouvement on a dit que bu baaxee on applaudit parce que nous sommes des citoyens nous sommes des patriotes mhm. bu baaxul on mais le doigt sur la plaie mhm. pour alerter les populations ok léegi au moment venu maintenant le mouvement choisira Est-ce qu'il faut aller aux élections mm -hmm. Est-ce qu'il faut dégager un vent de changement C'est au mouvement de. tey lan mooy sa projet tey ci commune bi. mais la commune commune mooy commune bu gën a neex a liggéey. ci naka. au niveau au niveau peut-être au niveau du département. parce que commune la boo xam ne am na huit villages yoo xamante ni ils jouxtent le fleuve. am quatre villages am euh, am euh, trois villages yoo xamante ni presque quatre villages bon quatre villages. Mm-hmm. yoo xamante ci kaw télé noonu la koy woowee quatre villages parce que commune il y a trois villages. Mhm. plus Dabi mhm. cinq villages même et trois villages yoo xamante ni ñu ngi daan a jéeg. y a la route nationale. Mhm. au nord trois villages au sud cinq villages au milieu ça fait commune bi donc am fleuve. commune bi am la jéeri. commune bi am également la route. lu neex a liggéey la route nationale. mais toutes les potentialités. bu dee route électrification am nga ko. bu dee ndox am nga ko. mais également tu as une population très disciplinée ñoo nga def di n'importe quoi ci popu ci société bi mën nga def di n'importe quoi à la tête de la mairie ñoom ils vaquent à leurs préoccupations mais le moment venu le moment des élections ils savent également choisir utile parce que j'ai l'habitude de le dire élection locale élection de la citoyenneté la bon beneen la donc projet bi projet yi nga am pour développement économique de de de, la commune. Mmh. c'est d'abord de passer par cette agriculture là bi ma xamante ne wax naa ko fii la sa mécanisation je l'ai parlé du plan global. Ah. sa mécanisation la maîtrise de son eau. Ah. et nga booster agriculteurs yi. nga jox leen l'amour de ce qu'ils font. mais de l'autre côté tu peux créer beaucoup d'emplois. mais moom par exemple avec CSE les milliers de camions qu'il a exploités dans la carrière de de de de de de, de, de du village de Barga. Mmh. mais ils pouvaient même ne pas négocier de l'argent négocier l'employabilité des jeunes par rapport à la responsabilité sociétale de l'entreprise par rapport au retour non c'est grave Yaya Abdou Kader dafa télé loolu non mais Yaya vraiment je désolé c'est un docteur il est ministre et maire mhm. en plus nga am chance nekk ministre et maire tous les ministres et maires que j'ai connus mhm. les ministres au DG et maires que j'ai connus ils ont fait beaucoup am nañu relation bi. mais moom deful loolu nga bëgg wax. non am na lu mu def naturellement. waaye mhm. lu bëri def mu nekkee ministre des télé des télécommunications. jël na benn poste yu bëgg ko bill. Mhm. dans son village natal. je que c' ça. Mhm. am na am na yu mu tabaxal ay murs de murs de clôture. pour certains villages. mais il pouvait mieux faire quoi. nekkee ministre maire wala nekk ministre DG ma nekk DG maire. tu des moyens. tu la relation. tu la confiance des populations. mais boo amee xol bu yaa. war ko mën a réaliser lu bëri parce que ministre maire yu ma xam yëpp wala DG maire yu ma xam yëpp c'est pourquoi sax dañ continuer di ko def au Sénégal pour un peu donner du poids à la mairie nit ñi mën a war a mën a defar seen ko tey candidat nga je peux pas l'annoncer je peux pas le dire parce que nee naa la sànq ci mouvement lañ nekk mhm. mouvement boobu il y de la démocratie à l'interne mhm. kuñ choisir kuñ choisir mhm. pour aller au changement du comportement actuel de la magistrature. Mhm. de Dabia man maa ngi ci maa ngi ci seen APR parti bi dafa bëri. Euh, xiiroo ŋaayoo bëri na jàppal fii Farba Ngom Cissé lu wax keneen ak keneen bëri na coow ah. loolu dafa nekk loo xamante ni c' est de l' irresponsabilité des responsables. boobu laa utiliser. responsable ñoo joué le jeu. non ils sont pas responsables. mais yéen ndax ngeen di nekkee ci parti ngeen war ngeen nekk ay mag d' abord. ngeen xiiroo vous êtes des âgés. Mhm. jeunesse bi. ndaw ñi ngeen war a nekk référence ñoom ngeen war nekk ay modèle ngeen nekk ci parti boo xam ne président Macky moo ko jiite président Macky nekk ku ñu ku xamul président soo ko laajee la kii ku yaru la au moins loolu moom c' est unanime pour tous les sénégalais mhm. am yar am teggin am jom am ay valeur yu muy incarne ngeen nekk ci parti dans le parti ñu ne leen parti bi éthique et les valeurs la c' est le parti de l' éthique et les mhm. mais mënoo leen incorporer loolu da ngeen toog dans les réseaux sociaux surtout ay Facebook ay WhatsApp. loo xamante ni xale yi ñoo ñun ñun sax vraiment on commence à ana xale yoo xale ñoo moom ay WhatsApp ak ay Facebook ak ay Instagram. rafetul daal ngeen nekk fa wala di xiiroo di ngaayoo di saagante ndey di saagante non c'est la référence. Mhm. dañoo a nekk ay référence a nekk ay modèle de mhm. boo toppee si ginnaaw ku nekk am na sa personnalité. Mhm. mais au moins incorpore un peu de sa personnalité. et nga nekk un exemple un miroir de la génération future. alors kàddu gu mujj gi Moussa Sow mooy coordonnateur COJER euh, tey njiitu réew mi moom la teg mu jiite ndaw ñi. naka nga gisee ngay ndaw itam nekk responsable politique. non Moussa il est dans la défensive d'accord peut-être pour défendre son mentor et c'est normal. Mhm. Euh, am na droit défendre moom ñoom lay bokkal langue politique ne lañ euh, booy défendre Macky Sall waroo xaar. waroo xaar non. Moussa mu ngi def ay action par rapport à la situation du pays man pour man coordonnateur des jeunes waroo rek génn sur les faits politiques parce que les faits politiques sont des faits aléatoires daf koy wax tey suba ñu ça passe mais gis nañu par exemple Covid 19 bi période bi ñu ci nekk gis na ñu taxawaayu Moussa Sow sur le terrain les est en train de les communes du Sénégal waxuma la rek Dakar mais du Sénégal avec des matériaux de détergent avec des masques mhm. et avec la sensibilisation qu'il faut mais loolu taxawaay bu am solo la mhm. parce que c'est important mhm. parce que la majorité de la population du Sénégal c'est des jeunes maladie bi affecte na ay jeunes D'accord, il y a les personnes âgées qui en ont le plus par rapport au, au, au mhm. mais affecté na ay jeunes. mais Moussa mu ngi def liggéey bu am sur le terrain. Mhm. par rapport à la sensibilisation man je sais au minimum qu'il a fait près de dix communes. au minimum peut-être sax plus parce que man nombre bi. Mhm. il est sur le terrain. il va à saint il va à Matam il va à. Thiès à Fatick. il est la dans Dakar à Biscuiterie aux Parcelles Assainies à Grand Yoff partout. Mm-hmm. il sillonne le pays en distribuant des détergents mais il fait un très bon travail. en plus il a. Mm-hmm. li ma ci bëgg li ma ci neex ci moom mooy. Mm-hmm. am na engagement bi. am na dynamisme bi mais. il est très constant avec la vision du c'est bien loolu daal lu baax la ok kàddu gu mujj gi lan la tey oui di leen di leen jaajëfal d'abord di kontaan ci émission bi di baalo ak sénégalais yëpp encore une fois lépp lu ci baax euh, yàlla la parce que moom rek moo mat lépp lu ci baaxul aussi man la parce que je suis un être humain est imparfait euh, li may woo sénégalais yëpp mooy maladie baa ngi fi pandémie baa ngi fi mais ginnaaw on est condamné à vivre avec nañu dund ak moom mais aussi nañu fagaru par rapport ak moom kooku benn la euh, deuxièmement di ñaax sénégalais yëpp ci résilience économique bu président la république woote vraiment ñëpp jàpp si c'est une responsabilité collective parce que dëkk bi bu naatee ci la ñuy soog a naat ñun individuellement ci la ñuy soog a développé wu ñun individuellement bu dëkk bi sooxee ñun ñëppay sooxee parce que ci biir dëkk bi lañ nekk nous sommes un contenant dans nous sommes on continue dans le contenant bien donc dañ ci war a jàppale ñu am solidarité président Macky moom la yàlla teg fii aujourd'hui suba lii ñëw yàllaa xam mais aujourd'hui même bu dee monsieur Bemba moo nekkoon président la république. Mhm. dama lay tooñ mu nekkoon sax président bu gën a tuune. Mhm. au niveau au niveau mondial. comme ñun ay sénégalais lañ ñoo bokk territoire mhm. bokk population bi bokk situation géographique bu ñu wootee au développement nañ ci ànd ak moom. parce que li ko baax ci moom. moo baax si ñun. donc cette initiative. de travail de résilience économique sénégalais yépp si war a jàpp mhm. pour que ñu redorer waat climat d'affaires bi mhm. ñu redresser suñu économie ñu mën a créer ay emplois pour les jeunes mhm. et puis dëkk bi naat ñun ñëpp ñu nekk à di la sant di la gërëm mbokk auditeurs yi sant leen itam gërëm leen xanaa di leen jox dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii si rajo Rewmi